c'est la référence. jàngeen euh, jëfati ngeen ñuy toppandi ci juróom-ñeent fukk yu tombal euh, ben kaddu gi di àddoo fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu wuute te fasantikoo mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci tu yi ci kàllaame ko ci yàttal bu ngeen taaxirloo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës. li ci gën a fës nag bokk na ca wàllum euh, politique mouvement nag jàmmi Kaolack am nañu coalition bu yees bu ñuy dàkkantalee jàmmi gox yi amal nañu ab jano ak taskatu xibaar yi fësal seen ci boppam commune bi moom Mouhamed Rajab ca ba département ba dañ ci dégg Cheikh Babacar Dieng ci biir xibaar yi ana lan mooy ràññeetle doxalinu commune ak département kenn ku nekk ca moom ana lan moo cay sa sañ-sañ gannaaw nag ba ñu dëgmalee ay élection locale lu ni mel njàngat lu yaatu yaatu lay doon ak Cheikh Tidiane Sarr ca quartier bii di Case nag foofee nag branchement sociaux ya fa waa ONAS tàmbali woon def te mu tagg témbe daal dina fay jur fekk leen rek ñuy jooy lënd lëndëm trous gi ñàkk éclairage public daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne donte ne sax nag dañu koy faral di sàgganee waaye day li nga xamante ne nag moo di hypertension artérielle ay loraange yu métti métti rek lay jural askan wi ci wàllum wér-gu-yaram naka la ñu koy uh, fàggandikoo soxna Ndeye Fatou Cissé Seck na ci waxtaan wu yaatoo yaatu ak cardiologue bii di docteur Souleymane Thiam bu li lépp yembee dañ ca teg xabaaru uh, biti réew tàggat yaram ak li yéen kaay xëy tey ji a esquisse ñu yaatal. Le journal Ngoné Ndiaye Reine moo nekk ci waxukaay gi feggoo ci koddu sekk kenn me ci wàllum xarale gi kàddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé xibaar yi nag dañu koy doo rek nañu leen ko junjee ca njëlbeen ga euh, branchement sociaux ya waa ONAS doon def nag ca quartier bii di Kasnack benn weex ci tey jii rek liggéey ba taxaw tagga témbe waaye nag mu mel ni ki jur na fa ay coow leerlu geek Cheikh Tidiane Diagne coow li ne jobbay ci quartier Kasnack Kaolack dara defulu ko branchement sociaux yi nga xamante ne waa ONAS ñoo ko fi daal di tàmbali ci benn weer booba ak tey askan wi nag nit ñi dañoo am ñi ci des amuñu lu ñu mel ana lan moo ko waral. compliqué wul nit ñi ñoo ko bëgg a rek parce que balaa dara di xew. ONAS dañ fi ñëw def benn seen benn bureau ñu woote fi réunion benn après-midi bi ñu ñëwee waxtaan il m'a fait comprendre que ne y a deux cent cinquante branchements répartis en quatre quartiers. Casenac daf ci bokk Casenac nag li ko ci boole mooy liste boo xam ne bu nu fayoon la bu yàgg vers les années quatre avant 2000 250 maisons yi c'est en quatre quartiers léegi liste boobu ñooñu fayoon vers les années là ñoom ñoo prioritaire ay trente et mille la woon je ne me rappelle plus parce que dafa yàgg Kati Diagne délégué de quartier bi par intérim di xamle nag ne quartier bi ñu mel lu ëpp juróom-ñetti fukki kër daal di nañu ciy bénéficié wu 89 maisons lañ ciblé woon par la suite am na ñoo xam ne génnoon nañ ci liste bi te ba fii may wax ak yow nii branché wuñ leen côté bi gëj nañ leen fi gis mais ba tey ñu ngi biir Casamance pareegul. lu ni mel di projet état bu Sénégal ay quartier yu bëri ci Kaolack jamono ji di ko am kii tey nag ONAS waa quartier Casamance li ñuy sàkku ci ñoom moo di liggéey bi daal di am suivi. gas nañ ba pare mais tamit suul bi moo xaw a doy waar parce que mbedd yi mi ngi am ay côté yoo xam ne ba tey suulaguñ leen ñu ko suulee tamit des naa baax nag amul daal finition moom sunu mbébét moo di nañ branché ñëpp c'est le souhait. gannaaw branchement yi nga xamante ne jaar na ci mbedd mi askan wi di wax ne tamit liñ leen laaj ngir bi ñu daal di jëlee yi ci biir kër yóbbu ko ci mbedd mi xaalis bu takku la li nag bu fekkente ne dañu koy def ci wàll ko social war nañ ko yombal délégué de quartier bi di Kati Diagne moo ñu ko xamal. lii génne ci bi ci sa biir kër ba génne ko ci ragaar bi. xaalis la yomb parce que luy tourner ay et quelques mille jëm ci wàll ko projet assainissement bi nga xamante ne defal nañu ko diwaan bu Kaolack ngir daal di setal mbedd yi mbedd yooyee sax jamono ji tembe tembe am na ci quartier yoo xamante ne ñu ngi sàkk ñoom itamit ONAS ginnaaw nag wàllum assainissement boobee Cheikh Tidiane Diagne quartier bii di Kasnack nag dafay jànkonteek beneen jafe-jafe mu soxal rek lëndëm turus ba fa nekk jur fa ñàkkum kaaraange tiital waay jur ya Kati Diagne délégué de quartier Bakk Cheikh Tidiane Diagne. Kasnack am na jafe-jafe du fi jeex éclairage problème boobu moom jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg te xamuñu quel est le problème Kasnack moom moo lëndëm actuellement nii ba jaaxal àdduna jaaxal waa Kasnack moo tax mu bari agression bari lépp nit ñi dañuy jógee jàkka ñu agressé leen loolu mosul am kaas nag éclairage bi moom lu ñu si dimbale te éclairage bi il paraît ci gàmm gi am na côté yu ñu éclairé mais pourquoi pas kaas nag kaas nag moom lëndëm na trop te bu ngeen fi ñëwee guddi bis bi lëndëm gi ku ñu dimbale daal ñu jël loolu lañ ci gën a comme ñu ngi indi assainissement bi mais assainissement bi nañ ko def pour ñëpp ah du jeex ñun suñu koñ bi ñu bëri léegi ñu ngi obligé di génne sax xam ne bu timis jotee ñemetoo fa jaar te loolu mosul am kaas nag foofu musa actuellement ni am nañ problème mooy éclairage bu ñu si dimbalee daal ñu jël. def ngeen ci ay jéego. ah luñ mun a laajte laajte nañ ko ñun bu njëkk dañ naan wax ne sax su fekkee ne mun nañ jënd ampoule joxe sax ñu monteel ñu ñu jël waaye gisoo léegi koo xam ne mun nga ko jox ampoule sax mu monteel la loolu amatu fi te bu njëkk dañ ko daan def nañ ñu dimbale daal taalal ñu làmp yi mu am suivi wala bu ñëwee ba ci kër délégué bi ñu expliqué ñu ñu xam lan moo tax taalalu ñu ak lan mooy problème bi suñ ko mënee régler ñun ci biir quartier bi ñu régler ko bëri agression moom te agression yoo xam ne sa nekkul ay xaaju guddi xaaju guddi ay suba teel nga koy dégg yoo xam ne ay six heures et quelque ay dix-neuf heures ci ngoon agressé nañ fi benn xale bu jigéen loolu donc du xaaju guddi cela veut dire que ne am na insécurité bu fi nekk. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu daal di euh, wéy nag ci xibaar yi daal di wax rek jëmee ci wàllu wér gi yaram euh, tension nag la ko olof di wax waaye nag lii di hypertension artérielle ab jàngoro la rek boo xamee ne nag dañuy faral di ko sàggane te moo ne day ay jeexital yu méttee métti la mën a def ci wàllu mbir gi yaram jot tey ji nag ñu gën a soñu waaye tamit ñaaxaat askan wi leeral gi ak soxna Ndeye Fatou Cissé. hypertension artérielle en naa ne feebar la wala du feebar. hypertension bi rek déjà benn milliard doomu aadama heureusement laay wax mu ngi fii Afrique kii ma toog nii hôpital mun naa la wax ne sama activité bu dee ñetti pàcc la ñaari hypertension ñi fiy ñëw tension lañu amee. hypertension artérielle wala tension nees mën a def ba xam ki ka amee maanaam nañu koy nattee. alors bu xamee affaire tension il faut que ñu natt ko. waaye ci anam gi gën. appareil déjà il faut mu adapté appareil yu baax technique bi même jël bi ma jox la exemple kenn du jël tension sa loxo amul fu mu tegu soo ko defee chiffre yi c'est faux tubaab naan il faut un accoudoir donc su loolu amee mu leer na leen appareil baax nañ technique bi maîtriser nga natt nag soo nattee benn yoon moo tëb ne ni da ngay amee tension ñu koy natt ci ñaari loxo yi benn yoon ñaari yoon mu ngi espacé fukki fan fukki fan ak juróom ah, mën a ànd ak ay complications. bi ci gën a fës mooy insuffisance cardiaque xol bu doyee di ñu gaaw sonn apat suñ ko bàyyee noonu mu commencé fàtte noonu guddi dootu mën tëdd ñu bàyyi noonu tànk yi commencé yi ñu naan gob du néew yi fekk du affaire du gob du néew yi xol bi moo a bon des loolu day ñëw rek nga faatu boobu moo gën a bon te malheureusement dañuy seetlu ne dafay yokk. complication yooyu nag mën a yegg ba ci bopp bi. def AVC ñëpp xam nañ ko xëy suba rek tànk bañ loxo bañ mun a wax am yeneen cause mun na laal bët yi rétinopathie mun na laal aussi sidit yi nga xam ne ñoo nekk ci tànk yi wala feneen ak feneen fépp am sidit fu deret dem tension mun na fi ay jafe. complication yooyu nag docteur Souleymane Thiam di cardiologue bu hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass mi ñu sekkal kon waxtaan bu ni tënk la rek ci jafe-jafe gën a fës euh, te mën a tukkee ci loolee ñu naan HTA wala hypertension artérielle euh, la ca gën am solo nag bu weesoo paj mi mu dëkk di ko wax moom docteur Thiam mooy na jot na ngir gën a jëmmal euh, ci wetu askan wi yéete geek fagaru gi jëm ci li ni mel. jaajëf soxna Ndeye Fatou Cissé yéeteek fagaru googee sax nag ca la ñuy des yan matukaay lañu war a jël moo xam ci wàllum dundin gi lekkin gi ba ci wàllum tàggatu gi docteur Souleymane Thiam di ab cardiologue xelam màcc jëm ci fànn wi dikkaat na ceeg soxna Ndeye Fatou Cissé. man dama gën a jaaxle parce que effectivement ñeenti at si a wax nañ def nañ xëy na sax ñun am nañ ci responsabilité parce que laaj na nag comme nii émission yi ñu ci koy def des na ñu génn sax dem si quartier ñun mën nañ ne ah yéen kat kaay la après cinquante ngeen amee tension ñëpp duñ ko amee de mais mun nañ ko amee donc suñu xeex ci ñoom lay commencé donc ñooñu ñu ne la yéen nag nañ commencé di leen wax li ngeen wax def boole ko ak ñi nga xam ne am nañ tension benn bi mooy wàññi lekk bu saf xorom ko wàññi OMS nee na nit warul lekk lu passé juróomu gramme xamam ci bés kudd bu ndaw moom la ñu natt moom la ñu xamamee bés bi yëpp 24 heures yëpp yéen seet du ngeen togg da ngeen dugal ci mbuus mi sotti si sotti si bu nekk ngeen jël jaxase mélangé def si déjà loolu problème loolu moo tax nit ñi autant loolu musiba la baaxul ensuite moytu beneen bi aussi di lekk ay légumes ensuite yëngatu activité physique loolu moom dafa am solo même ku amul tension nit foo mu ne ngay dox chaque jour wala ñett yoon si semaine bi nga def 30 minutes de marche nga koy def am na solo day wàcce tension day doxal xol bi même dafay jouer day faatu si suukar si ki amee jabet day wàccee suukar si donc dox bi am na solo c'est important. c'est important euh, docteur euh, Souleymane Thiam dem nag ña ca wàllu mbir gi yaram ca la ñuy euh, des daal di wax nag jëmee ci leneen ab accident bu méttee métti nag moo am guddik altine jàpp talaata lu ni mel nag ma nga amee ca diggante Jibelor Sigicoor ñaari woto ñoo fa ay nit jële ci gaañu gaañu yu méttee métti ba sax yóbbu woon nañu leen ca l'hôpital ngir wàllum taxawu Ndiambé Diop directeur centre hospitalier régional bu Ziguinchor mi ngi ci micro Mouhamed Sagna. tey dafa am benn accident accident bu metti sax boo xam ne ni dafa am ñaari oto yu laalante moo tax euh, am na ay blessés yu bëri am na ay blessés grave waaye aussi am na ay blessés yoo xam ne ni ay blessés yu garaawul yoo xam ne ni mën nañ delluwaat si seen kër ñu ñëw nag tey en tant que directeur ñëw taxaw taxawu maladie ànd si ak médecins yi ànd si ñëpp pour lépp lu nga xam ne ni war na si ñoom jël leen en charge taxaw taxaw si d'ailleurs euh, ñuy rafetlu bu baax wax dëgg yàlla SAE bu bees bi nga xam ne moo fi am parce que tey bu fekkoon SAE bu njëkk bi la ça va être très difficile mais SAE bu bees bi alhamdulilah permettre nañu pour lépp maladie lu mu bëri bëri macha allah ñu mën leen jël en charge muy lu am solo loo xam ne ñu ngi siy sant yàlla. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ngeen ñuy toppandi ci xabaaru wolof yi ci kalamay ko ci ci yaatal ñu daal di ñëw nag ci ponk bu yaatu ba ñu jagleel wàllum euh, politique jaaree ko nag ci assemblée générale muy ndaje mu yaatoo yaatu ñi nga xamante ne nag ñoo ŋànk gox yi te ñu leen di woowee délégué de quartier yi ñoom nag fësal nañu rek seenu ko xalaat jëmee ci maire yi beeg euh, taxawaayam ni mu leen doon boolee nag ci mbooleem naal yi commune bi doon sumb yàgg euh, mboo ci délégué de quartier bu Tabangoy moo yëkkati yooyu le kàddu jébal ko Cheikh Babacar Dieng. ngërmande bu jëm ci Mariama Sarr ak équipe municipale am bi yëpp li waral ngërmande googu nag mooy ñun dañu nekk ay acteurs de développement yu nekk ci base ñii ay délégué la ñii ci biir conseil consultatif de quartier bi la ñu ne magistère u Mariama te noonu la mandat bi di jeex si ni lépp loo xamante ne mairie mu ngi koy nas ci base bi la koy commencé maanaam ci ñun la koy njëkkee dana ñu ci boole dana ñu woo ñu waxtaan ci te suñuy proposition dañuy gis mu réaliser wu loolu jar na jërëjëf di ko ci remercier di remercier toute l'équipe municipale daf ñuy boole ay liggéeyam ci lépp lu muy nas tamit def ci am nag ay effort yoo xamante ni maire ak conseil municipal dañu ko def pour renforcer gën a dooleel cadre de vie wu askanu Kaolack ma jox leen ci benn exemple mooy décharge sauvage yi ñu daan gis wàññeeku nañ bu baax a baax ku dëkk Kaolack tamit gis nga ne axe yu mag yépp actuellement ñu ngi nekk ci di ko nettoyer bu ñu demee tamit ci coté assainissement bi parce que Ibrahima Thiam muy defar texte bi nee na da koo def secteur par secteur boo xoolee am nañ fi fukki kilomètre ak ñett yoo xam ne voirie la ay tëli ñaari tëli Tabangoy Gossas ak su Ndorong bi coof ak Mérina Jalañ HLM ak boulevard de l'émergence ak Koundam am na ay yoo xam ne réalisé nañ ko pour ndoxu taw bi ak eaux usées yi mën a am yoon ba bañ a teemel na mu meloon ci Kaolack am na quartier yoo xam ne sax tey assainissement bi pour eaux usées yi tey ñu ngi ci à u vingt quinze ou quatre-vingt-seize pour cent de couverture ñu ñëw ci par exemple réseau hydraulique bi au moins jël nañ dox yóbbu ko foo xam ne tey bariwu fa woon wala yeggu fa woon lu mel ni Sing Sing lu Koundam 2 ak Parcelles ak Coofak boo xoolee ci wàllu coopération décentralisée mooy maanaam li xamante maire mënu ko am fii ci dëkk bi mu koy jéggaani di wuti partenaire gis nañ ci ay jéego yu bare yu rëy rëy rëy nde ñun ñii di wax partenaire yooyu heure bu ñu ñëwaan Kaolack bu madame le maire di liggéey ak ñoom conseil consultatif de quartier yeeg délégué yi dañ ciy bokk lu mel ni AMF lu mel ni Promoville lu mel ni BOAD PACASEN AIMF Mérignac PADES PIDES ANER Tiwaawan bi ne Gàmbi ci programme yu bari ak projet yu bari dañ ciy jàppale commune u Kaolack dañuy euh, des ba tey ci assemblée générale boobee euh, commune beek jéego yi réalisation yi mu def ci mbooleem fànn yi moo xam ci wàllum njàng ak njàngale wàllum wér gi yaram wàllum dimbalante jàppalante di wàllum social dellusiwaat na ci nag moom yàgg mbooc ba tey ak Cheikh Babacar Dieng district saniter u Medina Baye ko defee Kaolack day am ñaari district sanitaire dana mun a jàppale bu baax hôpital régional bu Kaolack lu mel ni Jalañ lu mel lu mel mel ni sing sing saarapël ga ak ngaan sayeer courant ak installation wu led yi gis nañ ne boo demee Fass Cheikh Tidiane dem Medina Mbaba dem pël ga dem Bongre dem Léona ak Koundam dem Ndorong extension di nga xam ne ay jéego yu bari am na ci éclairage public boobu soo demee Medina Baye ci route nationale 1 bi rond point xaaxum nga yegg Kabatoki ak su préfecture ba port route nationale numéro 1 bi ba Noiro wala rond point nga dem penc mat Ndorong église bu Léona ci kaw mise en place bi mu def ci construction wu nouvelle gare routière bi ñu inauguré le 30 octobre bii passé ak terrassement wu site de recasement wu mécanicien yi réhabilitation poulailler mooy mbaaru ginaar dañ ko réhabilité waat réfectionné 14 portes ak toilettes yu marché central defar nañ benn guérite tamit ak aménagement surtout recasement wu artisan yi ak tamit defar nañ air bi nga xamante ne ni ca Koundam moom la ñuy def séchage yu jën yi boo demee ci wàllu njàng bi am na fa ay d'éveil communautaire joxe na ci tamit ay bourses scolaires c'est très important aussi ñu souligner fourniture scolaire yi nga xamante ne danañ koy joxe à chaque mois d'octobre ñu bañ a fàtte tamit financement yi nga xam ne dina koy joxe ci journée de l'excellence bi nga xamante ne IEF da koy faral di organiser ak construction wu six murs de clôture yu juróom benn école élémentaire élan solidarité bi nag délégué de quartier bu ne wala président de conseil consultatif bu ne bon wala tamxarat wala korité am na liste booy bind yónnee ko yi te saay wu ñu ñibbisee ci sa quartier mu doon ay kër yoo xam ne dañu xawoon seen loxo bañ a jot seen digg ginnaaw te bu ñu ñibbisee jour boobu seen xew du naqari gàmmu yi pak yi yooyu tamit loxo commune bi dina ciy dem assemblée général bii nag enjeu bi mu am mooy dafa tombé ak ay élection élection yooyu nag ñun dañ fi teewal askan bi xamuñu kuy toog waaye képp ko mën a toog nga mun a xam ne Kaolack bés ñu tey am na te téeméer at ak ñeent cent quatre mu am nag maire yu bari yu fi jaar en tant que ay acteurs yu nekk ci biir quartier Abdou gis nañ fi Mariama Gel yóbbu Kaolack ci wàllum toog boobee nak ñuy yootu ci commune bi ca la ñu daal di nag wax rek jëmee ak lu ma leen junjoon euh, mouvement bi di jàmmi Kaolack nag am nañu coalition bu yees ñu koy dàkkantalee jàmmi gox yi dëggal nañu seen ak bopp tabb seen i candidat ci commune beeg département bi lu ni mel jaarale ko ci ab jano ak taskatu xibaar yi Cheikh Babacar Dieng mouvement bi ñu fi dippe woon jàmmi Kaolack mujj na am coalition la tudd am na candidat ci commune Kaolack am na ko it ci département bi. maanaam man Fadel Barro may candidat maire jàmmi gox yi fii ci Kaolack. ci département bi dinañ ci jiital suñu nijaay ji nga xam ne moom moo ñu jox récépissé parti politique moom mooy dem ci département bi incha allah. ñoom ñi ne nag ci seen jano bi ak taskatu xibaar yi la ñu xam leen ne amul dara lu leen mën a gàllankoor bañ bañ a bokk ci ñuy xëccoo bokk moomeel yi ci élection yi ñuy dëgmal lépp lu waroon seen digg ak yoonu réew mi yoonal nañu ko Fadel Baro mooy tëdd liste bi ci commune Kaolack. coalition jàmmi gox yi Kaolack juddu na tey fii ci Médina lépp loo xam ne loi bi laaj nañu ko def nañ ko ndax bokk ndax di ngeen am trente millions ñu ne ko ñun suñu pas-pas ci Kaolack ak ay doomu Kaolack yu dajaloo trente millions mënu leen a téye ñu teg ci taabal ji ñu ne ñu da ngeen defar coalition tuddee ko tur utal ko ay melokaan yi ñu ko xàmmee ñun utal lañ suñ coalition couleur bleu bleu ni asamaan si di leeree bu jàmm amee ñu ne ñu nag léegi ndax da ngeen am benn symbole boo xam ne danañ leen ko xàmmee comme ñeneen ñi nu ñuy tànnee ay bopp fas wala ay bopp xaj wala ay bopp golo ko sax ñu xàmmee ñu ko donc yéen waa Kaolack xam leen ne seen doom yi jug nañ. moom mi fi nekkoon coordonnateur Y'en a marre ci ay jamono tey jii njiit la ci coalition jàmmi gox yi ay nit nag yu bokk sax ci APR bu Macky Sall ñëw nañ bokk ci bule coalition comme ni mu amee ñu jóge ko ci kujje gi ñoom ñi jiital ab journaliste comme tëdd liste nag ñu ne amuñu ay millions waaye ay jukko lañu fa yéene wane. jamono ji nga xam ne dañu foog ne Kaolack jënd jaay a sotti danañ wane ne Kaolack ay jikkoom waral beneen xat-xaram jamono ji nga xam ne dañu foog ne buñ la joxul dara waroo bokk ci nu ñuy tabaxee réew mi danañ wane ne suñu pas-pas ak suñu yëngu-yëngu ak suñu ngëm-ngëm ak suñuy pexe danañ jël suñu mairie utiliser mairie bi pour defar Kaolack pour wane ne Kaolack mun na am beneen xat-xaram ay ndaw fépp fu ñu jugee déterminé décidé gëm li ñuy def boole ci jiital ci yàlla amul luñ munta am ci àdduna lii nag di wane ne ci commune Kaolack amagum na ñetti candidat yu ñu xam Mouhamed Ndiaye Rahma mi benn bokk yaakaar jiital Serigne Mboub mi candidat bu ànd defar Kaolack Fadel coalition jàmmi gox yi bu dee ci département bi moom Pape Demba bi tey bu bennoo dane fa dajee ak Mouhamed Rajab bu jàmmi gox yi. jaajëf Cheikh Ababacar Dieng duñu la bàyyeegum nag dañu des ak sa micro coalition boobee nag ña ca bokk di ay leader yu jógee feneen wax nañu rek la tax ñu wàlli ji foofee waaye tamit nag gëm-gëm bi ñu am ci boobule coalition ak yéene wu liggéey Kaolack seen i kaddu ñoom waa jàmmi gox yi ak Cheikh Babacar Dieng. mouvement bi ñu yëkkati tey bëgg a dem ci élection locale yi ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ko bàyyi taawul boppam ñëpp xam nañ ne man mouvance présidentielle laa bokk mais nag élection locale day loo xam ne affaire de gox la te ñun Kaolack moo ñu ñor changement Kaolack moo ñu ñor boobu ba léegi gis nañ ne heure bu élection jotee même liste la ñuy ci mairie bi même conseiller ñoo fi nekk kon nag il est temps yi jël Kaolack ci seen loxo defar Kaolack te loolu nag gisuñ ko fenn ci ànd defar sa gox bii nga xam ne tey jii Fadel Barro mi ngi ci na leen bu ko doon nelaw na nga yeewu Kaolack gi incha allah te bu soobee yàlla dinañ ko jël nag. ndax dañoo ànd ak jeunes yu engage jën yu xam seen bopp ñu gëm seen bopp kon caaxaan jeex na jàpp leen ne 1000 francs amatu fi 2000 francs mënatuñoo jënd ndax jeunes yi ñu àndal kenn mënu leen a jënd kon incha allah 2022 le 22 janvier dinañ fête suñu victoire fii bu si yàlla àndee te incha allah Kaolack dina xam ne doomi Kaolack jóg nañ tàllal na ñëpp loxo na ñëpp ñëpp jàpp ci ba ñu jël maire bi teg ko si loxo jeunes yi ñu defar Kaolack incha allah. jàmmi gox gi juddu na dafa am révolution bu am tey bi maanaam jeunesse bi moo ñu dugal ci li ñu bëgg def tey la naissance de cette coalition xam naa ne tey déclaration la jàmmi gox gi juddu na ñoo ko créé coalition la man mi wax ak yéen maay tête de liste départementale su ma jarbaat mooy dem tête communal liste rek lañ mën a ñaan te ma baalu ak bi ma jëlee war naa nuyu xalif général bu Medina Baye muy suma papa muy suma lépp parce que suma papa ak Baye Niass ay collègue la woon ci jamono ma ñu mànkoo nag tabb ko muy seen ko candidat ci commune bi moom nag wax na gis-gis bi mu am ci politique beeg nañuy naxee waa Kaolack yi te mu jàpp ne sax jot na tey ji nag ñu dakkal lu ni mel mànkoo juboo liggéey Kaolack Fadel Barok Cheikh Babacar Dieng. waaye li ngi leen di xamal ne ku ñëw di leen jox alal seen alal la yéen a ko moom jël leen waaye bu ngeen demee ci mbañ gàtt gi di ngeen ne suñ mu di koy jaayee fukki junne juróom ndax dafa soxla ci yéen muñ leen jeex ku leen daan jox as naa leen dimbali leen milliards jox leen deux mille ak trois mille jël seen dignité di ko pasar pasare ndax dafa xam ne kër yi moo métti rek muy utiliser loolu di leen bëgg a utiliser ne yéen moom mooy nit yéen laneen ngeen jeex na seen doom yi jug nañ doomu Kaolack yi jug nañ te incha allahu dinañ faat suñu ronq yi ak suñu jafe-jafe yaay yi ak suñu mag ñi ak suñu sœur yi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci kër yi di rëj rëj xuloowuñu xeexuñu ŋaayoowuñu ak kenn Kaolack lañ bëgg a defar képp ku leen bëgg a liggéey ku samp dëkk bi xam nga la ñu jàngal nee na biir rek lañ ko jiñut ndax dañoo xam ne góor la waaye li ñuy jiñ ak la wax yëpp danañ ko muñ ndax Kaolack da war a dana jàkk jël Kaolack ñoom ñu ba suñ njiitu réew yi dañ naan Kaolack ñoom bëgguñ dara ku am ku leen jox ay dërëm rek nañ ko leen ko jox mu topp leen mais ñun ndax danañ ko nangu jug bi ñu jug nii dañu bëgg a tas buumu njaam ak gàccaal gi ñu bëgg a teg ñun Kaolack Kaolack waroon nekk royukaay tey ku fi romb doo bëgg sax xool mbedd yi ni mu mel Kaolack waroon culture dafa wane doom yu mel ni ay Valdiodio Ndiaye ci sport mu mel ni ay Ami Mbacké Thiam waaye tey club bu baax sax jafe ci dëkk bi ndax loolu war na mën a continuer ak talent yi fi nekk yëpp ak xarañ gi fi nekk yëpp ak yu baax ak ngëneel ak njëriñ yi fi yàlla nëbb yëpp te nit ñi xamuñu ko parce que dañoo xeeb suñu bopp waaye tey xeebatuñ suñu bopp yeewu nañ jóg nañu liggéey rek a ci des ci liggéey boobu laay woo jeunesse kaolackoise buñ ci buñ ci xool la nekk kii lan lay léegi nañ ko dugal kii baax na ay ndaw ay mag ay jigéen yoo xam ne ba ci handicapé yi ñëpp lañ ci dugal koo xam ne mu ngi yëngatu di rek la jëm te gëm na ne mun na soppi Kaolack ndax bu laajee ñu nekk maire pour Kaolack baax ñun ñëpp dinañ nekk maire incha allah ñun ñëpp dinañ nekk conseil départemental mu nekkoon ay kaddu yi euh, Fadel euh, Barro wéy ba tey nag ci wàllum politique daal di dem ca diwaanu euh, Ndar Géej foofee nag waa yeewi askan wa ñoom ba jamono ji yeeweeguñu wa ndax xamaguñ fa ñuy taxaw ba na nag maître Alioune Abatalib Gueye moom nag daal di samp ndëndëm jaare ko ci àndoo ak taskatu xibaar yi eh, ci waxtu woo xamee ne nag ña ngay xaar carte gi leer eh, ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ba foofee leeral gi ak Bara Diop bu carte gi leeree ci Benno Bokk Yaakaar Amadou Mansour Faye nar a wutuwaat boppam ci ndigalug njiitu réew mi waaye yeewu askan wi ba nëgë ni xamuñu fu ñu fare diggante Cheikh Bamba Dièye ak Aba Mbaye maître Aline Aba Talib Gueye moom daal dina samp ndëndëm di laaj mairie bi ne lu nu mel lu mu yeyoo la dëkk boo ko bëggee à part man man dong maa am kër ci ndar te loolu dafa am solo de gis ngeen seen courant yi ngeen di fay di ko xeeb yéen a ngi versé ci budget mairie bi boo amee kër daa fay taxe ordure ménagère boo amee titre foncier daa fay la taxe foncière nee naa leen nanu génne ku dul man mënul génn kayit foofu ci candidat yi yëpp te nag ñoom politiciens yi sonal nañu wit askan wi jàppee seen bopp ay politiciens professionnels avocat lu nu mel ay caaxaan la yeesaay bu leen ni suñu dëkk bi ngeen defar ka nee naa leen bu ñu paree ñu dàq oto yëpp ne leen génn leen sama oto bu ñu bëggoon dem sax mooy retourner bopp ne leen buuma jëm te nag commune bu diwaanu Ndar Géej moo ko gënal fop département bu diwaan bi. bu fekkee ne woon rek ndomba tànk la xam nga département bi da ngay am lu ne te doo sonn kenn du la xas rien bu ma ko defoon di wutal sama bopp man du wut ndomba tànk moom lay jëli. saa su ne ñu dëkkee di leen nax maître ne loolu li moo fi war a jeex tàkk te yoon bi la mooy sànni tàccoom bu ko ndar-ndar yi wóoluwul noppi na ci ba faaw. ngeen toog bu élection ñëwee ngeen bëgg nu nax kooku nag dama ne man la ma ci mën xeex laay xeex décider ndar ñoo ko war représenté ndara nii li ko gën a naqare mooy politiciens professionnels yi escalier lañ leen def ñoom askan wi bu ñu faloo rek daal di fàtte ñi leen fal moom maître Aline Aba Talib Gueye di artu askanu diwaanu Ndar Géej bañ ñu falaat Amadou Mansour Faye bis bu ñu ko joxaatee dëkk bi daanu jooy waaye nag buñ ko fi nenee jëlee teg fi lu pire bàyyi ko fi dafay gën ci fàttali diwaanu Ndar Géej ci bokk na ci dëkk yi nar a gën a jax ci élection yi ñu dëgmal ne coalition yëpp ci pàccoo la ñu jëm gannaaw sampug ndëndug bokk yaakaar Mary Teuw Niane moom it daal dinay samp ndëndëm yeewi askan wi amaguñu benn mbër bu ñëpp maase ngir fal ko maître Aline Aba Talib Gueye Ahmed Fall Braya ak yeneen i candidat yu demal seen bopp ñoom ñi ñëpp seen yéene du lenn lulut jiite mairie bu diwaanu Ndargéej Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop. Bara Diop gannaaw artook dànkaafu googee nag jëmee ci askan waak bu ñu falaatee Mansour Faye maître Alioune Abatalib Gueye nag dikkaat na ca mairie baag na mu lajjee dëkk baag na mu sooxee ak mébét ya mu am ngir suqalikoo ay kàddoom ba tey ak Bara Diop. mairie ba waxuma ay xarit dem fa nanu tànn ci ndar ci quartier bu ne mag ak ndaw jeune ak yëpp ci lépp loo xam ne par rapport mën nañ porté nga xam ne chaque jour daanu mën di wax chaque jour daanu mën dem di nelaw làpp daan la fa fekk fëgg la na yaa ñoo la fi dugal ñii foog ngeen leen di àkke fii ku judd retraité ma ne ndar ku judd retraité la première capitale du Sénégal on n'est même pas capable d'avoir un centre commercial xale yi daan seen doole bu ñu kilee ñu ramasser seen ay bagages sànni xañ nañ leen di bàyyi la veille des élections wala ñaari fan ci Tabaski parce que jël na yow nga ne fii baaxul di jël ay droit am bi nga fi passé nga daxat boo leen ndërmeelu suñu lépp ndërmeelu waaw kon xanaa ñun dañuy def centre d'affaires pour ñuy ñëw te ñooñ nag bu ñu ñëwee day suñu doom yu jigéen yi ak yooyu rek ak mbon mi lañ fiy indi lii mooy a ndax carte yi suñu kër yi ak suñu koñ yi ñoo ko jóge fokk ñu jël détermination bu ñu bokkee ni ma d'accord mettre sampal ñu samp wax naa ne bu doon sama sako quartier bu ne ñu seet ña fa nekk muy góor jigéen ñu indi ndax investiture yi noonu laa ko bëgg doxale bëgguma tëj dinaa affaire xarit bu fekkee ne langal nu ndax caution ay wàlloog yooyu waaye déet waaye ñoom de seen caution dañ koy lijjanti ñun suñu caution ñoo ko ñàkk njar jaral nañu ñu teg quinze millions bu doon am benn conseil jaral nañu 15 millions yooyu mu nekkoon ay kàddu yu maître Alioune Abatalib euh, Guèye jógee ndax géej daal di dem nag ci diwaanu Touba Mbacké ba tey ci wàllum politique mébét la woon ca moom nag amal li nga xamante ne rek moo di ab liste parallèle gannaaw nag tabeefu njiitu réew mii ca département bu Mbacké moom Serigne Abdou Lahat Mbacké Gaynde Fatma jot na nag ndigalu teg lépp ci suuf donte ne sax ay jéego sori woon na jëmee ci wàllum coalition leeral gi ak Mamadou Moustapha Mbaye. mbébét la woon bu sori woon lool moom moom Serigne Abdou Lahat xamee ni président Macky Sall dafa tànn Makhtar Diop HCCT ngir mu jiite liste départementale bu Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Mbacké loole nag mel ni kon bi nga xamee ne dogal bi jib na moom Serigne Abdou Lahad Mbacké gaynde Fatma dafa mer taxoon ko mu wax ne dafa ànd ak ñi nga xam ne fës nañu yéen ànd ak moom taxawal benn liste parallèle loole nag mu na moon ci ànd ak ay kilifa yu bare bare jotoon na sax waxtaan ak ku mel ni Abdoulaye Niane Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly mi nga xam ne mi ngi nekk bokk gis-gis ne jamono jii ñuy wax ak yéen moo jiite liste départementale bu yeewi askan wi waaye jot na waxtaan ak Serigne Fallou Gallas Kaltoum Mouhamed bu réew mi ak yeneen i kilifa mu mel ni kon liggéey boobee sax xawoon na sore te liste boobee sax ñu ngi ko doon commencé di defar moom nag Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma gannaaw ba coow li bare Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké woo na ko téléphone jox ko digal ni ko loolee daal na ko bàyyi teg ko ci suuf taxit moom Serigne Abdou Lahad Mbacké mu wax Sall def na ko neexu ko benn yoon waaye mënta teggi ndigalu way juram Mamadou Moustapha Mbaye Touba. Alfayda FM jaajëf Mamadou euh, Moustapha mbay politique bi nag ci waxtu wii lëmbe na réew meek élection locale yi ñu euh, dëgmal waxu commune ak département nag tàmbalee booy ay nopp euh, te moo ne day wutee gi ci am ñu bëri umpale nañu ko gindeeku geek Cheikh Tidiane saax dégg-dégg rek lañ ci am muy élection yi nga xam ne moo soxal gox yee goxaat yi élection territoriale yooyu ñu war ko amal ci 23 janvier 2022 am ñenn ñoo xam ne ci askan wi dañuy jaawale li ñuy wax mairie ak département mu mel ni léegi ci Sénégal ñaari ordre de collectivité teritorial rek moo am muy commune bi ak département bi commune bi takke lépp loo xam ne moo jëm ci quartier yi nekk ci Kaolack département bi takke 14 communes yi nga xam ne moo wër Kaolack yaa xam Kaolack commune bu Kahone bu Diya bu Latmingué commune bu Ndiaffate ak yeneen ci ay communes yoo xam ne seen lim mu ngi toll ci fukk ak ñeent département boobu nag ñu jox ko ay sañ-sañ maanaam ay compétence boo demee ci article vingt-sept soxol code bi nga xam ne moo takkee gox yee goxaat yi lépp lu jëm ci promotion développement économique territorial ci diwaan bi yaa xam ci njàng mu kawe mi la ko ci lycée yi santé ci hôpital ak yeneen ci ay sañ-sañ yoo xam ne tamit mën na ko def moom département bi si lu soxol commune bi compétence nga xam ne bokk na ak bi muy neuf domaines ci planification aménagement du territoire gérer li ñuy wax ressources naturelles yi urbanisme ak habitat jëm ci wàllum culture éducation jeunesse ak lépp lu jëm ci wàllum wér yaram ak ndimbal ñu koy wax action sociale commune boobu nag war am taxawaay bu am solo ngir gën a mën a jàppalewaat askan wi mu mel ni kon commune maire moo koy jiite département di président conseil départemental di ñaari mbir yoo xam ne gox ñaar ñaar ñëpp la watee ndoor ku ci nekk ak sa liggéey bi nga ca war a def ak sañ yi nga xam ne code bi jox na la ko kon nañu ràññagle ñaari mbir yi muy commune bi ak département bi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ngeen ñi toppandi ba tey ci juróom ñun fukk yu tombal benn ci ay xabaar yu wér te daal di wóor ñu daal di wax nag jëmee ci leneen ci lu aju nag ci defarum tenue scolaire yi euh, doyen Pape Touré nag daal di ne dajale rek artisan yi ci diwaan bi jëli ji ay tàggatkat ngir ñu waajal leen ci liggéey bekk lu ko gën a taaxal ba njuumte du ca am euh, Pape Ndiaye di kenn ca leen doon ña leen doon tàggat mi ngi ci micro Cheikh Babacar Dieng. waaw tey nag ci doyen Pape Touré bu Kaolack vraiment mu daal Kaolack bi nga xam ne fa laa dëkk daal bëggoon naa vraiment ñu gis bopp ci blues yi si laa ko ne nag pour ñu mun ci gis bopp ñun dañu bokk ci kuréel boo xam ne bu tudd MFO maanaam bi ma waxee loolu vraiment wax ko modalité yi yëpp dëgg yàlla moom moo jël alalu boppam def ko ci pour ma jógee Dakar ñëw former teeru Kaolack yi soo xoolee tey cinquante personnes ñoo fi nekk parce que formation toujours vingt cinq personnes la ñuy jël mais bi ma ñaanee cinquante personnes dama ko dinaa ko def parce que ni ma gisee nga sonn ci ak volonté bi man tamit vraiment danaa jël sama aajo yëpp def ko ci tayeeru Kaolack gi aussi ëllëg lépp lu liggéey ci biir Kaolack bu blues yi mu bañ a ñu koy su fekkoon sénégalais yëpp yi nga xam ne ni Pape Touré noonu la xalaat kon yaakaar naa ne Dakar léegi mu wéet parce que xale yi bañ ñu ku leen jàngal métier mais dañu amul ku leen dimbali mais Pape li mu def tey parce que tey ay maître tailleur ñoo fi nekk ñoo xam ne dañu yor seen bi xëy na bi may doog a ñëw ku ci nekk gis nga ni patron nga mais bi ñu commencé def formation ku ci ne yaa jël sama numéro parce que jàng ma ci ma dàqal ci ñoom mooy bëri na nga ànd ak nga ñëw di former loolu moom a sama xol seet na ci loolu Pape Ndiaye formateur xalaat bu ni mel nag tailleur yi rafetlu nañu ko bu baax a baax ndaxte nag bu weesoo li ñu dëgmal dina yokk seenu ko xam-xam ci fànn bi ñuy yëngatu boole koog yi tamit di wax ne am nañu yaakaar ngir doyen Pape Touré jiite leen ndax xalaat yu rafet ya muy jibal seen i kaddu ak Cheikh Babacar Dieng man maa ngi tudd Khadim Samb nata tailleur Kër Madiabel Samb de bi de li ñu fi indi mooy dañu fi invité si benn formation renforcement des capacités ñun ñu ay ndaw yoo xamante ne si nii suñu lépp aussi artisan lañ ko fas yéene investir d'abord suñu doole suñu xam-xam suñu lépp quoi kon donc bu ñu wooyee su lu mel ni renforcement des capacités biir Samb de métier dañuy sawar pour ko ne rawatina nag li nga xam ne la ñuy wooyee si lan la ñuy def renforcement de capacité si domaine ban tenue scolaire yi nga xam ne si ni tey président Macky Sall si xalaat xam ne si vraiment ñun daal dañ si sant si côté boobu amul dara donc dafa mel ne dafa bëgg foofu ñëpp yem Dame Diaw géngi new la bon tey dañ fi am formation Pape moo xam moom géej la du jeex kon donc bu ñu ko déggee fi ñu dëkk ngir ngi new mu nekk kaw la Pape ñu bokk liggéey bi wax ñu ko kon faaw ñu ñëw sàkk si ko fi kon loolu lu baax la trop macha allah maa ngi koy sant rek gërëm rek vraiment di kontaan ci moom aussi parce que mënoon na ko yamale biir Kaolack mais vraiment da ko décentraliser ba nga xamante nii mën naa li wër alentouru Kaolack gi yëpp kenn ku ci nekk ki war a teew rek ñëw nga teew fi da koy yàlla rek yàlla yàggal ko fi parce que moom vraiment ku ñàkk ki ñaan Adama Diouf ñu gën maa xam ci bolle quoi bolle gànjaay waa fii dañ fi ñëwoon ci benn formation boo xam ne formation professionnelle mais nag bu dellu ci blouse yi nga xamante ne suñu président Macky Sall moo ko initié bugg aussi yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi liggéey ko capacité par rapport ak documents yi ñu jox soxla ci ay normes ci loolu lañ doon échange daal ñuy gërëm suñu mbokk Pape Touré la chambre bi. Ah, Pape Touré parce que lii mu def nii bu ko neexoon mu bañ ko ci fekk parce que ñi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement seen devoir la woon te defuñu ko moom donc su fekkee ne daf ko initier di anticiper affaire yi loolu dañ ko rafet lu baax kon jàpp ne bu doonee candidat dina mën a avancer chambre bi bu ko kenn ku marché central de Kaolack xanaa di ko rafetlu rek ñi ñuy nii du ñëpp ñoo ànd ak moom moom amul xaaj amul seet dafa wax ni kaay leen yéen ñu jàngal leen xam-xam bi nga xam ni moom lañ war a defee tenue scolaire kon donc loolu ku la ko ñu wax ko amul xaaj amul seet ñëpp ci boole bokk fu nekk nit waaye jógee kon donc vraiment Pape Touré dañ ko amal njëkk lii mu ne dafay posé candidat ci chambre de bi vraiment yaayoo na ko parce que yegg si nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi xibaar bi ci réew Cheikh Tidiane foo koy dooree. dañ koy doore ca réew mi ñu wax Burkina Faso wax ci woote bi nga xam ne woote nañ ko réew mooy yëpp ngir ñu taxaw jaamaarloog ak ñii nga xam ne ñoom la ñuy ooye di si nekk foofu la ca réew ma di fa lëmbee di fa def jëf yi ñaaw a ñaaw lu fa amati moo di soxna Ngoone beneen song boo xam ne mu ngi amee ca bët gànnaaru réew ma song yooyu bu ci mujjee am niki ay bis bi ñu génn juróomi nit ñàkkoon nañ seen bakkam doon ay policier ñu gisaat ne tamit am na ay civil yoo xam ne songoon nañu leen tamit euh, ci beneen diwaan ñu koy wax Sahel foofu nag fukki nit euh, ñoo fa ñàkkoon seen bakkan song yi di gën a bëri ca Burkina Faso mu mel ni daal Afrique fitna du fi jeex. xabaar yi. bitim mu ngi amee woon ci atum 2013 ci ñaari fan ci weeru novembre juróom-ñetti at ci démb ñaari journalistes yi nga xam ne moom la ñu wax Ghislaine Dupont et Claude Verlon ñu faatoon leen foofu la ca Mali ca Kidal euh, faat bu doy waar nag journalistes yi bëree bëri di ko doon naxalu ñu doon wax ne danañ ci amal ay enquête wante enquêtes yooyu ba léegi nii amagul lenn lu ciy leer jëf jooju ñu ne alxayda qaïda au Maghreb islamique ñoo ko defoon jamono ji enquêtes yi di woy jëmale ko ci ñaari journalistes yooyu nga nee na faat ci atum 2013 ñu koy wax Ghislaine Dupont ak Claude Verlon. xabaar yi bitim réew. ca États-Unis ña ngay waajal bu baax a baax élection gox yee goxaat yi rawatina ca capitale bi ñuy wax New York foofu nag boo moytuwul lu bees dana fa am ndax waa ji ñuy wax Eric Adams doonoon fi policier nee nañ daal boo moytuwul mu jël raw gàddu ga ndax moom ab noir la nee nañ guléet la muy daagaan baatu askan wi ngir doon maire ca dëkk bi ñuy wax New York moom démocrate boobu jaamarloog ak beneen républicain bi ñu wax Quartus euh, Suluba war a jàkkaarloo waat ca télévision ba waxtaane si seen programme en tout cas lu ci mujjee am daal nee nañ Eric euh, Adams moo jotoon na jiitu ki nga xam ne moo di républicain bi wante daal nee nañ boo moytuwul surprise mën naa am ci élection yu nu mel foofu la ca New York. xabaar yi. bitim dañ koy jeexalee ca Afghanistan foofu fitna amatina fa benn hôpital boo xam ne militaires yi ñoo ko moom ca kabul moom lañ song bañ ko songee nag lu toll ak fukki nit ak juróom-ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan lu toll juróom fukki nit gaañu ci ni ki démb mu nekk lu ñaawati ca réew mi ñu wax Afghanistan bu ñu sukkandiku ci bilan bi nga xam ne këru taskatu xibaar bi ñu wax AFP fësal na ko jaarale ko ci benn responsable bu nekk ca ministère bu ñu dénk wàllum yaram ba réew ma bitim réew xabaaru tàggat yaram bàkk ba jipp xabaaru tàggat yaram door Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu Ngoone Njaay maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu ko dooree ak CAN 2022 CAF nag daal nay dëggal ñëw ko VAR nag ci compétition bii di Coupe d'Afrique des Nations instance bi nag daal dinay xamal ñaar fukki dëkk yeeg ñeent yi nga xamante ñoo war a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations ñu daal di jël li nga xamante ni moom mooy nouveauté bi waaye tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ñeent poñ dong la nar a doon moom mooy but yi la ñuy xoolaat carton rouge yi ndax penalty am na déet wala waaw ak identité joueur bi nga xamante ni war nañ ko daan Goal 50 2021 média international bi nag di Goal daal di na fësal list bi nga xamante ni def na juróom fukki footballkat yi gën a xarañ ci atum 2021 bi nag saison bi waaye nag li mën a jàpp ci boobu boobale liste mooy benn sénégalais dong moo ci teew muy kii di Edouard Mendy bu bëccëg Ligue des champions nag démb Dinamo Kiev dafa ñàkk ci kanamu FC Barcelone benn bal ci dara Bayern Munich tëcc tëcc yu metti Benfica juróomi bal ci ñaar Villarreal daan Young Boys Berne ñaari bal ci dara Atalanta Bergame ak Manchester United ñaar ak ñaar la ñu def Wolfsburg daan Strasbourg ñaari bal ci benn Séville FC ñàkk ci kanamu Lille benn bal ci ñaar Malmo ñàkk ci kanamu Chelsea benn bal ci dara Juventus bu Turin am ndam ci kanamu Zenit Saint-Pétersbourg ñeenti bal ci benn. tey ci ngoon nag Leipzig mooy laale ak PSG boobu la jongante Lionel Messi du ci bokk Man City di dalal waa Club Brugge. AC Milan di laaleeg Porto Liverpool di dalal Atlético Madrid Sporting di laaleeg Besiktas Borussia Dortmund di laaleeg Ajax bu Amsterdam Real Madrid di dalal Shakhtar Donetsk bu juróomi waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Sheriff Tiraspol di laaleeg Inter Milan bu juróom-ñetti waxtu jotee tournoi international bu Dubaï ci wàllum biir ci sooka démb Sénégal dafa daan Portugal juróom-ñaari bal ci ñeent tey nag la gaynde yi di seen diggante ak ñii di waa Espagne pétanque Coupe police yi nag nga xamante ñoo war a teewal Sénégal ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ni lu ñu tuddee sport debout le ñu jàpp ko ñeenti fan ba juróom-ñaari fan ci weeru novembre foofu ca Ouagadougou xam nañu leen nag moom mooy Wos Diack Fara Ndiaye Ablaye Gueye ak kii di Lamine Kane délégation bi nag ci jiitu la Ousmane Ba tey jii lañ war a jóge ci biti Dakar jëm fi nga xamante ni moom mooy Ouagadougou nag bu ñu sukkandikoo ci ki yore wàllum communication fédération bi di bi di Adja Issa Cissé moom moom nag tabb nañ ko mu war a bokk ci édition bu njëkk bi nga xamante ni moom la ñu jagleel Ligue de des champions ci wàllu jigéen ñi. doomu tëngéej gi nag bokk na ci fukki arbitre ak ñaar ak fukki arbitre ak ñetti assistante yi nga xamante ni ñoo war a arbitrer boobu les compétitions ma ngoog ngoone jaay gannaaw ba lay ñaanalee kandaa yow jàmm lii ma gënoon a fës ci xibaaru tàgga jaram yi jaayeen jëf li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Oumar Cissé ah. ahlan bikum juróomi ponkal juróomi ngonk juróomi candidat ñoo fas yéen a xëccoo nekk maire bu ndakaaru allah info yéen a kaay ñi ko xamal Abdoulaye Diouf Sarr bëru Macky Sall Benno Bokk Yaakaar Barthélemy Diaz bëri ñoom Ousmane Sonko yeewu askan wi Doudou Wade bëru Ablaye Wade coalition wàllu Sénégal Bougane Gueye Dany mbëru gëm sa bopp Pape Diop mooy mbëru bokk gis-gis ñoom juróom ñii nag ñoo fas yéen a ku daan ñëpp nag fa nekk maire bu ndakaaru na ko kon nag xeex ba ci juróom ñooñu nga wax fi mu toll ni tàmbali na gaa ñi fa fas yéene ñàkkante raag ba naaw vox populi na xeexu juróomi ponkal ku nekk bëgg a nekk maire bu ndakaaru Diouf saar bu benn Bokk Yaakaar fas yéene jàkkaarloo ak ñeenti ñoo xam ne é duuñu xay ñeexum ñebbe de ay bala leen a Diouf Sarr a mbuqi dana wax lu set wecc vox populi na man sax yokkal naa leen ci keneen Mame Mbaye Niang moo it candidat la ngir jiite maire bu ndakaaru si du quotidien na ko Barthélemy Diaz moo mujj nekk xalifa bu ndakaaru ca biir yeewi askan wi maanaam Barthélemy Diaz moo mujj am ndam ci kanam Wardini ma doon xëccoog moom l'observateur dëggal ko na koy Soham Wardini fori na new waaye démb ci guddi xalifa Sall waxtaan na ak Soham Wardini ba leeralal ko li tax mu tànn Barthélemy Dias les éco yéen a kaay na ko gis nga Khalifa Sall li nga wax Soham Wardini duggut ci boppam bi te neexut ko gënalut ko ba tax fi mu toll nii moom Soham mi ngi waajal defar liste boppam samp ndëndam bëree ngir défendre ab bilaam critique yéen a kaay na ko waaye ak lu mënti xew Barthélemy Dias moom suul na Soham Wardini doon te Khalifa Sall moo ca jàpp nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na ba yàqewante ba ca mairie bu ndakaaru gaañ a fa bu nañ ndakaaru kay fi mu toll ni jeeg bu jar la mairie ba ñeenti ponkal ñu ngi koy xëccoo Dakar Times dikk ak ñun ci erreur yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci tànneefu ñu jiite yenn ci ay mairie rawatina bu ndakaaru le mandat yéen a kaay ne man daal faa leen di wax xam na ñoo xamante ne fañ leen a jiital ñu nekk ay tête de waaye gis nga ñooñu luñ mën nañ ko def ngir ñu bañ leen a mbuqi waaye suñ leen mbuqi maanaam suñ ñàkkee commune yéen jiital fañ fiy doxee yàqu ci wàllu politique dee wet yaaw seetal Ousmane Sonko warta ñàkk diwaan bu Ziguinchor naka noonu Diouf su ñàkkee Dakar fay fori dana bon ci moom Mame Mbaye Niang su ñàkkee Dakar Macky fa koy teg ay sanction daan politiquement fay yàqu naka noona tamit Mame Boye Diao ca diwaanu Kolda critique yéen na ko li nga waxee dëgg waaye gis nga Mame Boye Diao li def nii moom la wax courage politique njàmbaar ci wàllu politique la wane ah ndax responsable bu fekkee da nekk ci ab diwaan Macky Sall def tête de tànn keneen ko sa ndënd mbuqi ka Macky Sall jiital su xam ne yaa cër te Mame Boye Diao loolu la def direct news na ko Baraya ca diwaanu Ndar moom itamit presque loolu la def Macky fa ko waxoon na ko àndal ak Mansour Faye nga jiite conseil départemental bi mu ne ko bëgguma mairie rek wala ma abal la fi mu nii nag ñaari yoon moo nekk ci kanamam mu ànd ak Bougane Gueye Dany wala mu ànd ak Pape Diop moom Baraya Vox Populi ne Abdoulaye Ba maire Nioro te bokk ca AFP nga xam ne Macky fa koo seppi jiitaluñ ko ca ko coordonnateur bu yeewee askanu ca diwaanu Matam moom moo deflu lu kenn mës gis ah, yow seetal fa dem déposé ay document kayit yoo xam ne dara ca baaxut ba para fay téléphone ba ñu koy oo jotuñ ko kon yeewi fa ñoo nar yàqule laas yéen a kaay na ko te fi mu nii nag bésu tay bi ba moo ci des bu minuit jotee ci la ñuy arrêté dakkal déposé liste yi kon képp kuy candidat na la wër na tey moo la dese benn bokk yaakaar nag li ñu nemmeeku mooy pëccëxoo ñàkkante xiiroog ŋaayoo bu métti moo am ci diiwaan yu bëri ah, yow seetal diiwaanu commune samp nañ fa seen mbër département bu Mbour benn bokk yaakaar moom fa faa tasaaroo la dépêche yéen a kaay na ko bul fàttee diwaanu Kaolack ndangaan ndaw ya bokk ca APR fañ doon amal doxub ñaxtu ni ki démb ca mbeddi Kaolack ya takk ay morso yu xonq ak banderole bu xonq cur xam nga luñ ca bind ñun bëgguñu Mouhamed Ndiaye Rahma doy na sëkk tànn gi ko Macky tànn ñun ndaw APR yi ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg Mariama Sarr la Macky waroon a jiital ndax moo ko yelloo ak lim yoo xam ne ñu ca a kaay bi ne am na ca ñoom ay jege ñaale Abdoulaye Xumma turbine yéen a kaay ne Nangaan coow loolu dox diggante Mariama Sarr ak Mouhamed Ndiaye Rahma kan moo ci nar a jëriñoo seen féewaloo googu avantage su kan la alerte yéene kaay mel ni ku xanaa sëriñ bu moom mooma nag xalifa général bu Medina Baye fa dem visité ji cœur de ville ba fi boo xam ne fa bett sëriñ bu xalifa bi fa toog rek yegsi ci guddi dugg ca biir fi kaaba ànd ak sëriñ bu xool liggéey ba rafetlu ko lay leer laneen lu leer ba mel ni jant tusubaar yi génn àdduna ci ba jébbal nañ leen seen borom léeg si ko yéene kaay Camara ñu kër Ibrahima Fall jaale ji exclusif yéene kaay ne ginnaaw naqar googu ak tiis Sonko ak ñi mu ànd Pastef bii mooy seen élection locale bu njëkk waaye ay jafe-jafe neen lañu xam ca diiwaanu Géejawaay ndaw ñu bokkoon ca Sonko Pastef bàyyi nañ ko dem fekk ji Lat Diop Kër Massar Pastef fa faal deltu ginnaaw gaañ a joxat nañ ca baaraamu tuuma Biram Suley leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne jiitëram Macky Sall fa bëgg ci booleem sénégalais képp ku bëgg a dem ci lieu public yi barab yoo xam ne ñëpp a ko bokk fa ngay amee passe sanitaire buy wane ne ñàkku nga ci corona bi te loolu nag far force fara force doole mbaam lay doon enquête yéen a kaay ñu ko xamal tàggat yaram Barça fa rëcc démb Bayern nu siif fa ñoo mbuqi ngàdd Cristiano Ronaldo soweeti na waa man yu yi tey nag Liverpool ñoom Sadio buñ mbuqee dem huitième de finale Paris dana football waaye Messi du bal réew mi yéen a kaay di ñu xamal ne ndaw ñi dem Barça wala Barsàq mbëkk mi xaru la waaye fa mel ni daal fañ koo ñàkkal fayda ndax ne nañ amuñ pexe réew mi amul liggéey faaw ñu dem bitim réew man ma dem ci libération fekk fa fukki doomu aadama ak ñett yu ñu teg loxo ci mbiru tappale ci orange money ak wéef ay millions yu baree bari benn liggéeykatu wéef nag moom la ñu wax ne moo doon joxe ay xibaar ci ñu xam ay compte wéef ba gars yi mën leen a dóor nax leen ña ñu teg loxo nag ci tappale gi ci orange money bi ak wéef bi am nañu dëkk Médina Ndakaaru am nañu dëkk Géejawaay am nañu dëkk Kaolack Ndangaan tribune yéen a kaay di ñu xamal benn étudiant boo xam ne fa sàcc benn million xam nga lu def xaalis ba fa caa jënd ñaari iPhone benn bi moom benn bi gelam ba pare jël gel ba dem luye appartement ñoom ñaar ñu nekk fa ñeenti fan di def fu saay-saay waa ma ne xam nga sàcc moom fa bon baaxut waaye boo sàccee xaalis ba pare xaalis ba nga def ci lu bon ci la sàcc di gën a bon ci yéenekaay yi Shukran El Hadji ponk boobee sax nag mooy ndax képp xabaar yi ci rajo bi waaye nag xibaar yi day wéy ci www point rajo point net jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi ci wàllum dëglu gi gi ak waa ngeen mucc ak muccule jami biir ak biti tawféex ak taysiir jàngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine